Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen siare, te di leen siyaare di di leen ko baal di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mamour Touré di set ci sëriñ Daam Abdourahmane Touré moom Cheikh Aliou Touré tey jii nag ñu fas yéene ay di ko jëme ci seex ma Massamba Touré mi nga xam ne mooy caatum Cheikh Aliou Touré radiyallahu an moom Cheikh Massamba Touré moomu nag tey jii dañoo bëgg a nettali lenn ci àggane àddinaam te loolu ma ciy nettali moo ma ko nettalil boppam mu wax ni waajuram jigéen soxna Seyna bu moko moo ko ko ni bis da koo woo mu ñu mu ne ko dama lay netali li nga xamni fekk woo ko ta nga war ko xam muy bi nga xamanteni ma ngi ñew ci kër baay Cheikh ali anhu te Serigne Touba di ma fi andi Sëriñ Tuubaa dafa woo seexal Aliou Touré ba mu ñëw mu ne ko soxna Seynabou Lo moom yi nga xam ne Sëriñ Isaa ko yoroon moom laa la bëgg a jox nee na Sëriñ Aliou Touré ne ko loolu day mbàkke day doy waar lool ndax sëñ Isaa day sama rak di sama mbokk kon soxnaam soosi yortu ma ni dinaa ko mën a yor soxna ne Bulum nee na Sëriñ Tuubaa ne ko jëfe ndigali sunu boroom ak xool sa digganteeg sa mbokk lu la ci gënal lu ci soob rek defal sëriñ Aliou Touré ne ko jëfe sama ndigalul borom bi moo ma gënal lu ma mën a am mu ne ko ah, lii nag ndigal la lu bawoo ko ci sunu borom sëñ Aliou Touré na ko lépp mu ngi say loxo bi nga xamante ni fas nañu loolu ba def ko fekk na booba soxna si nee na mag laa waaye bi ma demee këram nekk ci kër Cheikh Aliou Touré ca Njaareem nee falaa nekk yàgg fa lool nag benn bis Sering Touba aman na bëkk neeg bu ñuy wax sëriñ Kala sey kum daan faral di wola di ko yónni ci ay yonen nena bis dal sëriñ Kala sey mom moma ma ci ak fajar bi mu yeglo ba nopi daat ni serigne Aliou Touré soxna seyna bu lum de mom la serigne bi di wo sering bi soxna seyna na bu lum wuyje bi ñu àndee ba dem mu ne ko sëriñ bi kat neewoon na boo yegsee fii nga toog fii nii nee na soxna Seynabou nee na ma toog fa bu mu yàgg sëriñ bi daal di ubbi ne ma ana kooku mu doon ma ne ko man la soxna Seynabou Loum mu ne ma ana Cheikh Aliou ma ne ko ma nga fa day Mbàkke di la nuyu mais mu daal may jox cere ne ma jëfandikoo nee na ma jëfandikoo ca cere ja ba noppi la des ma ëmb ko sama kala gama yoran teyo ko ne mune ma mala wol won dama bëggoon a xam ba xam ndax suñu Aliou Touré am ngeen tak ndeer ne man ko ah, déedéet de mbàkk tak ndeer da amunu ko ndax man da damay mag te loolu ñuy wax njurum dom mom dama ko wessu wa fa jigen di tollu bay am dom de tollu way bobu wessu nako wax nañu ni sëriñ bi bi nga xamé ni wax na ko loolu sëriñ bi dafa muuñ moom sëriñ Touba daa dina ko ndax xam nga sëriñ Aliou Touré ak njabootam mu ne ko waaw mu ne ko ndax tudd na sëriñ samba Mbacke doom mu ne ko déedéet tudde ko doom mu daal di koy ñaanal ne ko baax na jógal nga dellu sëriñ Kala Sey mooy nettali nee na lii soxna bu Bulum mo netal neena li señ kala sëy xëy si nako ñetti fajar yo xamanteni waxtu deme señ touba señ touba li rek li rek lay wax ak mom ñetteelu fan ba nak ci fajar ka ba señ touba waxtane ak mom ba nopi te la bind aw kayit xamal ko ne ko di nga am dom du gor waxtu wu yegsee tur waa ngi ci kayit wi tudde nañ ko sëriñ Masamba waaw ne ma jël kayit bi denc ko mu ne ma nag na ko denc ba waxtoom moom sëñ bi nee wax ma lool dencal kayit bi ba waxtoom nee na mu jaaxal ma lool nee na ba ma ñëwee suñu Aliou Touré nee na ma ah ah soxna Seynabou sëñ Tuubaa nga lay woolu rek ndax dangaa def dara mbaa nga wax dara ma ne ko déedéet de Touré defuma dara waxuma dara daal da koy nettali nag la ma fa jële waaye waxuma ko joxuma ko kayit bi waxuma ko leen ci kayit bi nee ma toog lu toll ci weer daal di jëm ñaari weer di yëg ci sama jëm lu bokkut teg la ma daan yëg loola di dox ba doom gane àddina muy góor mu ne lu jiitu loolu sax kër gu mag ni mu daan tëdde nga xam ni ñi naan ah mag mu mag moo xamante dem nga ba dellu si ñaan da nga am doom nee na wax yooyu daana jib ci kër gi waaye bu ma ko waxee Cheikh Aliou Touré Cheikh Aliou Touré daan ni ma kooku lu mu wax sunu borom dogal na ko ba noppi waaw Serigne Touba lu mu wax yàlla dogal na ko ba noppi du waxantu mukk nee rek loolu rek la ma daan wax. neneen bi doom ji àddina sëñ Aliou ture yónnee ci sëñ bi wax ko ko sëriñ bi wax ko ne ko joxoon naa aw këyit soxna sëy na bulum def naa ci turu nee na sëñ Aliou bi mu ndaw la ñëwee wax ko sëñ Aliou si Cheikh Aliou laaj soxna sëy na bulum mu ne ko waaw joxoon na moo këyit waxon ma ne ma di nga am doom ju góor tudde nañ ko sëñ ma sàmba daal di jël tour def ko ci kayit bi daal di soxna sëñ bi daal di génn kayit bi daal di koy jox keroog sëñ Aliou Touré gën naa yéemooti gën na yeesalaat njëbbalam gën na yeesalaat ngëmam ci sëriñ Touba lii mooy ak gane àddinaam ci kër Cheikh Aliou Touré lii moo taxoon ku ñenn ci mag ñi xamoon loolu dañoo joxoon cër lool Cheikh Massamba Touré rawatina ki ñuy wax sëñ Baara Jenn moom daanako ko jox at xarum tabaski dako daan wax ne ko yow da ngay doomi sëñ Touba ci baatin di doomi si xàll yu Touré ci saahir loolu la ko daan wax bëggoon ko lool nag nag waaw ndax ku ne xam na ni sëñ Mbàkke Jenn mi nga xam ni moom la bokkal wenn jur ak soxna may jenn da xamne ne soxna Seynabou lum lu jitu muy ñew ci ali Touré amna fa ñaar ñooñu ñom ñaar ñooñu xaw nañoo mëna jur suñ sama bay Cheikh samba Touré nga xam kon lepp day war rek ci sunu borom ak Serigne Touba. noonu it li ko wax njabootu Sëriñ Tuubaa gi bëggee woon noonu lañ ko fonke woon noonu lañ ko daan bàyyee xel noonu lañ ko daan toppatoo waxtu wu jógee jëm ci ca ñoom ñoom dañuy yëg ni lu bokk ci ñoom ñëw na ci ñoom waaw ci noonu yi tamit bi nga xamante ni Sëriñ Aliou Touré ku ne xam na ni diir bu gàtt la fi nekk seex Cheikh Massamba Touré ndax mooy ki njëkk topp ci Serigne Touba ci dem ak Serigne Touba ginnaaw Serigne Touba mooy cheikh bi njëkk topp Serigne Touba ndax wax ñu bari dañ daan wax ne Serigne Touba daan wax ne Aliou Touré mooy sama njiit laay te njiit laay du sari borom. bi nga xamee ni sëñ ma Massamba Touré dëgër na tuuti sëñ Aliou Touré nekk ca wàccaay pour war a wuy ji boroomu te la woolu sëñ Issa Dieng ne ko sama caat mii day dama bëgg mu man alquran lool ci manin wu rafet teg naa ko ci say loxo té loxo ñu isa jëlé yobbu ko ci kërëm mu ne ci daara ja mu diko jangal sama bàyyi momay netti mom cheikh mo samba Touré mu wax ma ne amna bisam damaa daw jang ba ma dawee ne sëñ ma jëli ba mu ñëwee fekk nee na amoon na tëgg bu newoon foofu ca yoon wa suñ isaa tëggulu fa ab jéng ba mu wàññee ko daal di jël jéng bi daal di indaale bi mu ñëwee mu daal tàll si tànk ma tàll sama tànk mu jéng ma man ne ko lii nag mun ma sëñ Aliou Touré moom wax ne ma buggul ci yow dara ludul alquran te du ma fekki mukk du ma ko fekki mukk di am dara lu ma koy lay kon nag su ma wóoroon ma do man alquran dama lay ray neen suñu Isa wax ma di ma ko dindil jeng bi neena jeng bobu deful ci man fukki lu mat fukki minute neena ci dur bu gatt ci la mokkal alquran mokalin wu rafet neena na dem na bu mujju gi seigne isa waxtu wujule timis mom seigne massa mom mo ni ngi ci deug ci ak tan moma ma ci bop ne ma alquran demona ba ci sëñ isa fu mu julli timis ak ne ma ñëwal tàmbali nee na damay tàmbali lu mu guddi guddi minal jënd tawa su moy tax ma bay ne ni la ta ak maninam alquran loolu mom leer na kilifa yep mokal rumbu ta gaaw ci lol wax deug yalla man maninu rafet bind da ci daan roy ni sëñ daan binde ne na ma li mom sama royin la woo xam ne maa ngi daan roy sëñ euh, ma gisee mbindum sëñ moo tax may binde ni sëñ daan binde moo tax mbind na waxtu woo ko gisee sama xel day dem ci mbindum sëriñ bi kon nag sëriñ bi moom daanaka ak dikkub jamonoom ak alxuraanam nii la dikke ñoo ngi nuyu ñëpp te di leen siyaare waaw aj màkkaam it ñu bari dañoo jàpp ni sëriñ Fàllu moo ko yóbbu Màkka waaye sëriñ Basiroo ko yóbbu Màkka waaye bis daa dem Aliya di siyaare ji sëriñ Fàllu ba mu yeggee ba jub sëñ Fàllu sëñ Fàllu nag waaye waxoon naa bu kenn yegg si fii waaye kenn fekk ci kees gi nee na sama sëriñ ma sax mu na ko ah yow de foo foo ne ma fekk la fa mu ne ko ngay nga may nuroo ku jëm penku nii waaw ñun sama baay ne ko ah paas bu ma yóbbu de paas sama kër de yaa ma koy jox mu ko waaw waaw loolu kay maa ko warlu waaye penku rek penku rek yaa ngi nii yaa ngi nii penku rek nee lii de sëñ Fallou moo yëgal sama dem penku nee na ba ma jógee ca moom bis boobu sëñ Fallou yëkkati ñaari junni jox ma nee na ma ñëw njaareem bi ma ñëwee njaareem daal di jàll Dakar ma jàllee Dakar. señ Bassirou ñi mu war a yóbbu mu boole ma ci ñu di wër nak di wër dima ba mujj gi señ Ali Touré mama fekk Dakar ni ma waaye foo ne sëñ Bassirou ngi lay wër fépp ah ñu ngi lay wër rek lo def ne man ka ah, mi defuma dara neena bima ñëwé bi ma señ njaareem ne ma ko Dakar mu ma Samba Dakar moom sëñ Bassirou moom tuddee woon Samba Dakar Samba Dakar ah Dakaru Dakaru rek maa ngi lay bëgg nga bokk si ñuy dem màkk ah ba ngi nii ñu war a yóbbu mat ma ah nga ñu waaj ba ëllëg rek ba ëllëgee nga bokk si ñuy dem nee na sëñ Basiir wax ma loolu man ko waaw màkk waaye la sëñ Fàllu waxoon rek ne ko yaa ngi may xeej màkk sunu borom du neenal mukk ay waxam ñanu tànn di leen yóbbu pour ñu xool leen docteur yi di leen xool bañ leen seetee am ci ku feebar ñu ne ko kii du mën a dem sëñ Basiir daal nañ nañ jox. suñ ma sàmba mom mu dem te mom gina da wér di mu tok li moy dem euh suñ ma samba touré makka waaw kon nak ñu yemale foofu témoignage rek ba bénn yoon ñu dolli ci yenen ak yenen ak yenen wa ñu baax ñu dal mom ñong leen ni ñaanal bu baax yalla tax ci seen euh yalla jéggal leen yalla dolli leen ay leer ñun ñu fi nekk suñu borom dimbalañu bañ mën leen a taxaw ci saahir ak baatin barakati eh, sëñ Mbàkke di sunu ndijaay ku tedd la ku baax manon alquran Quran, eh. ko kolol di jang waktu waxtu bu ne kaamilam bu ndaawam boobu mu yoroon nga xëy bu xëyee rek ubbi ko yàlla dimbiloon bu bis bu ne bu xëyee jàngu kaamil ma Masamba Touré bokon na ci ñi jang kaamilu alquran par bis ndax da koo defoon mécc rek mom bu xëyee ubbi ko rek foko fek muy yër bu ca noppee rek daa jeex kaamil daa jeex bis bi yëpp nag lum jaxasoo jaxasoo nit ñi lum xat-xat du ko bàyyi te kaamil bi jeexul loolu nag mokkal ko alxuraan moo ko mayoon ndax alxuraan yàlla daa dugal sëñ Masamba bi muy tuut tànk la wajuram làqu Seex Ali Ture waaye Cheikh Ali Touré nag dafa waxoon ak sëñ Issa Diène ci mbirum sëñ Massamba da ko noon Massamba mii dalug alxuraan mag yëpp bàyyi na ko sa loxo waaye nag bu ma seen dina mokkal alxuraan moo tax sëñ Issa Diène moom daa garan bakkanam ci mokkal alxuraan ak sëñ Massamba ndax sëñ Moussa Gueye moom ko joxoon da ko noon Moussa xaw ma ku dul mokk waaye bàcc moom donte da nga koy rey na mokkal moom amul fu ñu ko jaarale woon ci alxuraan fa fañ ko jaarale fépp neexut a wax waaye tax na mokkal na ko mokkal bu rafet goo xam ne yéeme na waaw yéeme na loolu moom yàlla dimbaloon na ko ci mbiram dafa xaw a yéeme ndax maam Seynabu Luum woy juróom eh, Cheikh Issa Dieng ko jëkkoon a yor mu am ca sëñ Bàkk Dieng mu dër salaam dellu ca amit soxna Maymuna Dieng soxna Maymuna Dieng moomu sëñ isaa jenn daa xëy benn bis ñëw fi Cheikh Ali Touré barikàlla ni ko Maymuna mii kat mat naa dem kër te yow laa ko bàyyi mu ni ko wuta am nga kenn ku la ci doye mu ni ko waaw mu ni ko ku ci doye mu ni ko Ali mu ndaw sun rakk ji de doy na la Cheikh Aliou Tounika moom laa ko bëggoon a jox da kon nag suñuy xalaat daje na ci mu daal ñu daal koy jox sama baay maam sëñ Daam Touré ak soxna Absa maam Sayid bi nga xamee ni ab liggéey mat na ci kër sëñ Isaa sëñ Tuubaa moo digal sëñ Isaa ni ko Seynabu Lu moom boole ko lu ko dundal ren ba déwén te yët ko àll itam sëñ Tuubaa ko digaloon sëñ saa waaw soxna Seynabu sëñ sëñ saa ba mu ba mu ba ab liggéeyam noonu ci moom ba mu ko yët sëñ àll alal la ci boole yàlla defit mu toog ci kër Seex Aliyu bay bëgg a mat at sëñ bi sax ko yónnee ndaw woolu mooy yónni ndaw ni ko neel àllitre sëy na bulu moom na muus bi maam say demee siyaare ji sëñ bi sëñ bi ni ko kër àllitre googu amu ko fa dara ba tey mu ni ko déedéet sëñ bi daal di toog ab diir daal di jóg dugg ci néegam génn lu mel ni eh, muraak def ko ci kook as kook as kook mooy mbàttu yu ndaw yi ñu daan naane foote daal ko koy jox ni ko jëfandikoo ko maanaam maq ko daal mu daal koy jëfandikoo sëñ bi fab satalaam xelli ca kook sa ni ko jàlle mu daal koy naan mu ñaanal ko ni ko baax na ma ngaa dem ba soxna say di bëgg mu daal di sëñ bi daal di jógaat daal di jëndaat jalaat lu mel ni askay bind ca lem ko moom sewru def ko lemu bataaxal jox ko ni ko boo demee denc ko denc ko te bu leen tàggoo waxtu woo amee gan na nga ko jox al Aliou léegi mu daal dem denc ko denc ko denc ko far yàlla def mu am àndandoo ci boppam ba sëñ bàcc mii gane àdduna tey sëñ Touba daal di woom sëñ ma Massamba yabal ko kër Cheikh Ali Touré ñu ko demal tuddi gan ko xam nga Cheikh Ali Touré da daan def bu amee gan ci këram rek day dem jébbali ji ko jébbal ko sëñ Touba ni ko gana nga fa góor la mbaa jigéen Eh, eh, sëñ Tuubaa nag bu tudd ba jotee daana fa yebal sëñ Masamba ak sëñ Afe daal moom ñoom daana leen fa yebal lu bare bare bare bare ñoom lépp ci waa kër Cheikh Ali sëñ Masamba sëñ Afe la sëñ Tuubaa daan yebal def bi sëñ Masamba ñëwee ba ñu yóbbu ba Cheikh Ali Touré dalal ko ba ñuy bëgg indi gan gi pour tudd ko maam saylu daal di tuuñarloo ñoom dal di ñëw jox Seex Ali Ture këyit wooye ko Sëñ Tuubaa jox yàlla def ñu daal di indi gan gi war koo tudd Seex Ali Ture lemmi këyit ni Sëñ Tuubaa turu Sëñ Masamba la ci bind mu daal di ko jox Sëñ Masamba Sëñ Masamba lemmi ko xool ko mu ne ko ah kon ne noonu la mu ne sëñ yee ko joxe kon moom sëñ Tuubaa tudde na ko sëñ Masamba te ñëwagul jamono moom noonu la noon la mbiram demee yàlla dogal na it loola moom def na barke topp ndax képp ku bokk ci sëriñ bi rek su musaa gis sëñ bàcc day mel ni doomam la gis sëñ Abdu moom daa mujjoon dem sax ba bu sëñ bàcc ñeeni ko fu ma fu ma aw jox ma di ndax liñ may loolu yow sëñ Abdoulaye di ko ree naa ko ah waa ci bàcc xam nga ni maa la dàq de moom ndeysaan loolu daal ko wax waaye yëfi suñ borom ci boppam moo naqaree xam waaye yëfi suñ borom moo naqaree xam ndax eh, yu bare bare dañ koy dañ ba du du neex a xam waaye sëñ bàcc moom bokkoon na ci kilifa yi kilifa la woon de kilifa bu baax nag baax a baax a baax yaatu lewet bari jàmm lool ndeysaan am yërma lu mu am rek ndeysaan dina ko jox njaboot gi ñu jëriñoo ko bëggul kenn xiif kenn mar bëggul kenn lekk lu naqari sëñ bàcc doomu ak dongaam ci këram di lekk lu naqar lu neex rek waaw lu neex rek waaw ndeysaan noonu la ko yàlla mel nit loon koo xam ne daal nëbbutu na denc na yu bari ci ay mbóotam rek ba dem waaye macha allah nit suñ borom la góor yàlla piir loon daal góor yàlla piir loon waaw Dar Salaam gee fa sëñ Mbàkke Jàng nekkoon na fa defe naa ne bu ma juumut sëñ bas ak ndey Touré fa lañ gane waaw la ko fa jële ba indi ko njaareem ci kër googu dëkkal ko fii loolu moom sëñ Falloo ci wax ak sëñ yàlla yi mati sama baay ba loola am du lu ñuy leeral ñëpp waaye noonu la demee waaw moom daal wax dëgg yàlla nit la koo xam ne daal yàlla na ci barkeem te dundal ay doomam te may leen barke ci barkeem Seex Aliyu Ture waaw ndax eh, mbóotam lu nekk ngi ci lu nekk ngi ci sëñ Bas doomam ju mag yi nga gis ni muy ni mu mel nii lépp eh, mbir la mbir la ak baax rek la ndax nun sëñ bi mus na na wax ne basiru mii maag sëñ ak ñu bari suñu waa wax na ko nu basiru mii nii mu mel nii bu leen jàpp ni ay rabana ci moom ab yan la yor yan bee xaw a ci moom rek waaye moom ay rab jàpp bis boobu sax kaamil alxuraan la la la génn jox sëñ Bass man sëñ Bass loolu laa ko bu fii nit la koo xay nit ku mu fonk la tey sama xarit la loolu nag tax loolu ma señaal waxoon ci moo tax tey damaa gis ci sëñ Bas baax gi nag sëñ Bas kenn ku sant tur ko gën amut moom baax na bëgg na jàmm bëgg na lu baax te wax dëgg yàlla nit ku bëgg mbokk la man di daf maa bëgg lool noonu laa ko bëgg may itam nag na ko yàlla dundal dundal ñëpp sëñ Abdoulaye ndeysaan moom itam gis ngeen rek xam ngeen àdduna noonu lay ñëw waaye yàlla am na lu mu tegu ci kanam waaw yéen ñëpp daal yal na yàlla sàmm te aar leen te musal leen seen barke bu defee ni sa mbir ci am jàng dong la ne da ngay gone di ko def rek waaye di nga am ab cër incha allah yal na ci àgg jàmm ñëpp ci barke Cheikh